ñoo daje ngir di woote màggaluk daaru li nga xamante ni dañ koy faral di amal at mu jot ci ndigalu ki fi nekkal borom daaru muxti muy Serigne Cheikh Khady ñuy ñaan mu yàgg fi lool te te moom it at mu jot balaa mu koy woote mu ci am ndigalu ki fi nekkal Serigne Touba Serigne Cheikh Sidil Mokhtar ñuy ñaan moom it mu yàgg fi lool te kon nag ñi ngi leen di xamal képp ku jàkkaarloog ñun mbooleem taalibe borom daaru yi nga xamante ne ñu ngi ci France ak di ko def di ko ànd ak fédération borom daaru bi nekk Italie ak mbooleem fédération borom daaru yi nekk Europe yëpp ñu ngi leen di woo ci bis bi nga xamante ni moom la ñuy def màggalub daaru Moxti muy le 14 juin 2014 di ko defee ca Touba au lieu ci saal ba nekk ci ginnaaw kër rek bàyyiwuñ kenn waaye yàlla yóbbu ahmad makki yoo dem yëpp yëpp ñu tàmbalee ci daayira sëriñ Modou Moustapha ba ci daayira njabootu sëriñ Mouhamadou Mourtada bàyyiwuñ kenn ak di woo kër sëñ Touba yi fi nekk yëpp it kër sëñ Touba taverne ak mbooleem daayira Baye Fall yeeg ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp képp kuy wax ashhadu an laa ilaaha illallaah ñu ngi lay woo ci sunu bis bi moo xam daayira Tijaan yi la moo xam daayira ñëpp rek képp ku dib jullit ñu ngi lay woo ci bis bi nga xamante ni dañ koy wooteel borom Daaru Moxti te muy bis ba nga xamante ni ci la sëñ Touba jógewoon ci woolu borom Daaru Ndar mu ñëw bis boobee ci la ñuy sewaat moom la ñuy woote fii di ko màggal kon nag dañuy jox kàddu gi ki nga xamante ne suñu kilifa la mu fekk ko fi muy Serigne Khadim Mbacke docteur moom Serigne Mouhamadou Awa Balla moom boroom daaru mu gën ñoo yaatalal woote bi bu ko defee taalibe bi yëpp ko noonu kon bisimilah Serigne bi. وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة ربي اشرح لي صدري ويجعل المكان جاي لله أين لا فرد قليل الله إمام may gi ma may ma fekk jataay bii ayn ala qutbul wara tijani khalifatul qadim dun rawatina ayn ala karmi rijalillahi di am mbégte lool ci bis boobu xam ne Serigne Fallou moo ko moo ci joxewoon ndigal nga xam ne ñi nga daan màggal bis moom la borom daal wàccoon liggéey di ñaar fukk fan ak ñeent ci aw baram waaye euh, Cheikh Mouhamadul Fadil radiyallahu anhu deuxième xalifa bu Serigne Touba moom moo ne bisu mbégte bisu naqar bisu mbégte daal di wax ne nañ ko sopp yaakaar naa daal di wax ne mbégteem Serigne Touba ak Thierno Biraye mooy bi Serigne Touba ñibbisee ci géej gi sahaadatan ridan bi duuna suq euh, mooma ko fa daarul mu ma jooy la ahmadu awa balla baayam ko bàyyi ak sëñ ñu toll woon ci xam balaa sëñ bi ñibbi si seeni kaamil ak maam Cerno Ibrahima juróom-ñetti at yi ko sëñ Tuubaa bàyyi ginnaaw ñi war a mokkal alxuraan ñëpp mokkal ñi war a am xam-xam ñëpp xam nañu ñi war a seex seex xat damul ginnaaw ñi ñi ñi feebaroon doon faatu dafa jaayante ak suñu borom ne ko bu ci kenn naree faatu na nekk sama njabootu bopp waaye ñii ma sëñ Tuubaa bàyyeen bu ci kenn loolu ginnaaw te bakkan ay jot bakkan ndax bakkanu Ismaayil bakkanu eh, xar dong ci la. Eh, billaahi wallaahi tegal jàllaahi ba njaboot sëñ Tuubaa gépp wér duutuma ree bakke ku duuna laahi naama xalilullaahi ibrahima wala yëpp la bisub képp ko am jom la bisub képp koo xam ne kii am nga responsabilité buñ la buñ la dénk la waaw bu boobaa kon ginnaaw bi ñu dégloo kàddu yi si xaadim yu am solo yooyu ñu ngi jox kàddu gi ki nga xamante ni mooy jëriñu daayira bi muy Serigne Miqdaar Jong. moo jëkk gi kon moom mu gën a jotal yoote woote. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa yi nga xam ne ñoo ngi waajal màggal gi di ko yëgal mboolum mboolum taalibe suñ mbokk yi ci dëkk bi ak mbokk yi nekk marché yeeg fu nekk daal ci convention di leen ci woo di leen dalal te taxuma ak sa wàcc seel na gileeg saxaar kon ginnaaw bi ñu dégloo jëwri ni daayira bi sëriñ Mixdaat Jong ñu ngi jàll ci sëriñ Xaadim Mbàkke moom sëriñ Abbas moom borom mu leeral ñu bis bi nu muy demee wàllu programme bi ndax moom daanaka wàllu scientifique bi comité scientifique bi moo ko jiite bu ko defee bis ba dana am ay waxtaan yu am solo yoo nga xamante ni képp ku fa ñëw rek da nga am loo fa jële lu la jariñ ci sa wàllu diine ak it ci sa wàllu àdduna kon ñu àndandoo déglu Serigne Khadim Mbacke moom Serigne Abbas a rek bis xamante bi ne man nga xalifatu di xayrul fard yaay doomi ahmadul mbakki yu am di bulu ko nag ababakar sadiqo ginnaaw rasulullah kon bulu ko nag am di mustawa ma joole am di mustawa baayam ba ko jàngaloon doomi baayam dañuy jëlee ci baay bu mel ni Thierno. ginnaaw mu di ko ko ndel Bamba ci biir Thierno. ak tamit. bu muy jëlee ci kuy roog maam Thierno. ci mu doon premier rijaali xarnu woo képp yàlla mën moo jëkk daw kuttu ba mu ja ak moom ba gañaa yëpp ba raw na gañaa yëpp tegi tuur ba Xaadim Mbàkke Abbas ñibbi këram yool ma ko buur ba ku ne xam ko ci daayira bi ak alaaxira jeexal kër ma li ci des ci programme ak ñi nga xamante ni ñooy fas yéene jàng jàng yi ya bamba dem te war a def fa Diourbel ñëpp dana ko leeral bu soobee yàlla. mi ngi doon. a'uuzu billaahi mina rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. te bopp assasine. léegi ñooy nga xam ne ñoom lañ bokkal France bokk ñoom. nekk fii ci Europe rawatina suñu mbokki Italie. waa daay di bi di woo waa gépp xale yi nga xam ne ñoo bokk ak ñoom di yëngu fii ci kër Sëriñ Touba gi Aulnay di leen woo ci bisu borom daaru bi nga xam ne. danañ ko taxawal la 14 incha allah ci gëstu Tuuba wal nañ di ki wax ne leen danañ am jàng ay jàngkat ñu koy teew mel ne sëñ Ndongo Thiam dina ci ñëw sëñ mbay Ngom Rijal dina ci waxtaan ak sëñ Paate Mbaye ak ak sëñ Sidi Ndiaye bi nekk fii ci ñoom ñëpp di ay jàngkat yoo xam ne daal moo ci ak kuréeli xasida yi nga xam ne ñoo waa Touba Aulnay ak ah, kuréel yëpp daal ak suñu yi nga xam ne ñoo fi nekk ak yi Sikar waa Kër Seex na ko xamul saarir sama toppi membar kenn ñu ñëw jàpp ci bis bi xam ne bisu njariñ la ak bisu jéggal ñu ñaan ñëpp fekk ko ñu teew ko di ñaanal sëñ Seex Xadim na mu defar fi lool teewal ak njaboot borom daaru gi fi nekk ñëpp waaw maam Cerno wàcc na ba faf sëriñ daam sëriñ ma mor ab ñu ngi nuyu daam jigéenul ori ay nu yaa koy teeru lalam ñu ñu mbar sàq ñu ciy feeru ma ngay bu naana ci di fuuru jot na ca bisu feer ba di sulliiru bamba takkal na ko médaille baatin